ako mo Yeah, you can just go newoon ci connexion bi rek affaire bi seey ñu ñëwaat parce que dëgg ji moom foog mu jib ala kulli haal ah nit moom booy waxte yàlla tax doo am looy tiit looy ragal man nag kenn kese laa ragal ci kaw suuf ma xamal leen ko tey man ku ragal yàlla laa ragal ku ñime yàlla dama man ku ñime yàlla damay damay am fit affronté la kenn kese laa ragal ku ragal yàlla koo gis ma ragal la rek da ragal yàlla ku ragalul yalla man dama lay ñimé manam buñ la dudul baram. sax man dama lay duut baram buñ la ñimewul affronté bo taxawee man dama lay affronté kep ku ragalul yalla man dama la ñimé na la ak fo mëna taxaw ñimé na la songu te woor na ma ni dama lay daan par force Kep ku ragal yalla man dama la ragal ku ragalul yalla ragaluma la ak pexé bo yor ci kaw suuf donc ne seen xel dal rek deug ji dina jip ala kulial deug ji mom dina jip di jégalu bu wér nak samay kilifa yi nga xamni ni dañoo ndigal ak ndogal ci man a ah, ñaanon mo pour ma nopi manam joton na ndigal comme ña nit ya joté pour ma nopi ma baña wax ma baña def live ma nopp ma di xamal nag man ab nit dëgg laa boo xam ni damay fëloo li ma suñu borom wax wala lu ma suñu sama profet sallallahu alayhi wa sallam muhammad wax daf ma xamal ni injustice boo ko gisee jógal nga xeex ko boo ko mënul xeex ak ci say loxo nga xeex ko ak sa gémmiñ boo ko mënul xeex ci sa gémmiñ nga xeex ko sa xol munuma tok fuma ma di gis injustice di gis nit yi ñuy sàkkal pexe di gis ñi di turute te dara amu ci jappu ñu ba légui criminel jappu ñu ba légui commanditaire ma gis ñu situation réew mi tollu ngir sama rawala sama bakkan mu jaral ma ma noppi ah man de buma ma leen waxee ne mun ko damay man Muhammad buma len leen waxee ne mun naa ne xool sama réew ci ni muy jamono ji mu noppi ci ndigal kese ah damay kàcc man moom munaguma ko ngeen jéggal ma lool samay waajur maa ngi leen koy ñaan ngeen jéggal ma trahir naa li ngeen mooy wax mais nag jàpp leen ni rek ah yére mu jur nag dëgg la lépp ci ndigal la waaye la may doon loolu yàlla moo koy def ci man la dëgg jën nay ci man yàlla moo koy def ci man al gamay am pour wax deug ji lolou yalla mo koy def ci man japp nerek ni rek ah, ab bagage suñu borom la quoi bagage suñu borom la rek bo xamni ni waji mom dal injustice munu ko setan mu kenn munul wax ba mu nopi ko kenn munul wax ba du ci yéey yàbbi ci bo len ko defé rek ko koku ëpp na ma sax man dayo munu contrôler li ne ci man lamay wax lo buma gisé gisee injustice loolu mënuma ko contrôler lay tax ma gis nit di tooñ doomu aadama ba mu ne tott toroxal ko ba mu ne tott te deful yëgul ma song ko loolu ëpp na ci man du lu may contrôler kon nag maa ngi tuub tey jéggalu ci digle googu ak ci ndigal googu ma ñàkk a jëfe maa ngi ciy tuub tey jéggalu bu weesoo loolu ah suñu réew yaakaar naa ni umpalewul kenn bettul kenn ca la daw ca la fi ñépp xam nañ ni Macky président Macky ci dictature ci fitna ci njaayum doole ci toroxal jaa gor ci lay dox ci loolu rek lay dox nguuram yépp l'histoire retiendra que Macky Sall ci fitnaal doomu aadama ci wàcce doomu aadama toroxal doomu aadama ba mu ne tott ci néewal doole doomu aadama rek lay dox mais bu ñu nee doomu aadama dañ naan si ay opposant ñim jàpp ni ay opposant am lañ ngir buur moo ñëwaat ci réew mi buur la lum wax waaw la kàddoom waaw la sant kàddoom ëskay la sant kàddoom ci dox rek dox rek la sant la sant maanaam kenn waru cee am arrière pensée kenn war cee teg baat bu buur waxee ñu xamal ko ni jamono jooju nag weesu na jamono jooju dey jamono ji ñu ne nii ah dëgg soxal nañu ba nga xam ni boo ñu tegoon paaka ci put ñu ñu ñu yuuxu ko dëgg toll nañu foo xam ni paaka ci put sax duñu tere bañ a wax dëgg jooju noonu parce que dañ koy wax parce que dañuy xam ni allah kulli aal ak nu mun a mel dinañ dee muy bu paaka bi wala jaasi bi wala fetal bi wala dee gi bu jotee allah kulli aal kenn mënu ko rëcc mais bu jotul lépp loo def lu tax waaja dee donc ñu xamal ne Macky Sall lan mënuñu arrière loo lan mënuñu tiitloo rawatina nag nee naa la man duma ragal ku ragalul yàlla man Muhammad duma ragal ku ragalul yàlla sama xol mayeguma loolu kenn kese laa ragal ci kaw suuf mooy ku ragal yàlla képp ku ragal yàlla dama laa ragal man mais ku ragalul yàlla man dama lay affronté ñi mën naa affronté Macky Sall ba last line ba yowmal xëyam ñi mën naa ko affronté amul pexem bu ma ragal amul pexem bu ma tiit lu ñu def Ousmane Tunkara man bokkoon naa ci liste bi man bokkoon naa ci liste bi vendredi woo nañ ma sama téléphone boobu jàppaguñ Ousmane Tunkara xamal ma ni dañoo def benn list ñi ñu woowee ay activiste fas yéene leen jiiñ terrorisme fas yéene leen jiiñ ne dañuy nasaxal kaaraange réew mi ne dañoo commandité ay crime dañoo commandité ay ay violence et cetera et cetera man ci laa bokk man moo Mollah Morgun ñu ne dañuy plainte vendredi la la wax ma xamal leen ni loolu mbégte la ma xamal leen ni loolu buntu la buntu boo xam ni damay jël waxu Thomas Sankara bi ils ont voulu m'enterrer mais ils avaient oublié que j'étais une graine ils ont voulu m'enterrer mais ils ont oublié que j'étais une graine wallaahi ba mu ko déggee ba léegi sama lii teggeekuwul may ñaan yàlla yàlla na am waay sama lii lii lii ba mu ko déggee ba léegi fii laa dëkk quatre-vingt-dix pour cent fii laa dëkk di ñaan suñu borom yàlla na sotteeg jàmm waay yàlla na pexe ba sotti ndax xawma kande waaye man moom yàlla dafa def ni man sama kawe sama tolluwaay sama grade maa ngi koy amee ci nit bu may jéem a fexeel ci nit lépp lu ma am ci kaw àdduna man Mollah Morgun maa ngi ko amee ci pexewu nit pexewu nit ci pexe ju bon ju nit di jublu ci man yàlla di xaaj di xaaj xam nga lan moo ma mun a suul may defi mbir ngay def lu baax loolu daf may suul man leer laa goo xam ne lëndëm moo may leeral bu lëndëm amul duma leer man duma tàkk ci biir leer leer du tàkk ci biiri leer ma leen di wax nag ki ma doon man nit boo xam ne laa lu lëndëm taxawee rek leer damay damay feeñ lu ma mën a suulee mooy nga leer boo indee leer rek ma seey kenn mënuma samay garaat maa ngi koy am ci nit yiy jóg di ma fexeel ci nit buy jóg di ma waxal ci nit buy jog di fenal ci nit buy jog bu sosal yàlla di ma di yëkkati di yëkkati di yëkkati day dem ba tiit dafay daw nit yi ko jëm yëpp dañu ma bàyyi daw parce que plus que ñey def foog ni waa ji dana yaq plus que yalla di ma dima di dima di sargal di magal motax bu ñuy tiit dañuy tiit sanni ma ñepp ñuma affronté ci kawsul dañ ma sanni daw muy ñu don rap muy ñu don classe ma fi nek nit bo xamni nit duma classe nit duma classe bala nga classe di nga wiru junni yoom ak jurom ñaar ñoo ñu wa rapper yi xam nañ ak lepp lu may wax do gis rappeur bu yëy yàbbi ci man dem nañ ba xam ni waji waji plus que nga kay dugg plus que ngay dugg ci jëm ko yakal plus que ngay torox muy gën di est ce que lool yalla suñu borom mo koy def ay jaamam man bama nek ci sama sama nekkin rek di dox wa man nak dama bokon ci liste ba ma leen doon xaar ci jàmm ak salaam di ñaan yàlla waaye mu ngi mel ni maanaam ab nattu di ñëw ngay xaar naan waaye yàlla na yegg si waay dama doon xëcc nattu bi wallahi la azim dama doon xëcc nattu bi pour man ma bokk ci mais à la dernière minute dañu effacé sama tur ci liste bi dañu effacé sama tur ci list bi affaire bi yéem ma pourquoi ñu effacé sama tur ci liste bi wallahi la azim mooy li ma leen wax bu Macky Sall jógoon ne daf may sosal daf may siggil te dina dinaa ci am loo xam ne dinaa ko indi teg ko ci loxoom ne ko est-ce que xam nga ni sos ba nga jóg ne danga may sosal ci laa amee lii ak lii ak lii ak lii xanaa xam bunt la woon loolu bunt la woon lu lu feeñ lu feeñ fang lu ma waroon am lu rëy ndam lu rëy laa naroon am mais daf xaw ma lu ko Macky Sall moom dafa xam naa am nay sëriñ xaw ma lu ko ko wax xamal ko ni booy dugg ci mbirum waa ji defar ko ba faw defar ko ba faw ci kaw da ngay jug pour sosal ko pour fenal ko mais da koy defar wallahi la azim billahi wallahi buntu la woon boo xam dama ci doon defaru Macky Sall di di dossier boobu noonu dama ci doon defaru ba faw ma ci doon defaru am ci loo xam ne aw ma ko jamono ji dama ci doon jaaree am ci lu ba am ci ay garde garde corps ay garde yu may garde xaw ma nag lu ko xamal ko ne bàyyi leen kii ñoo tax ñuy rocc ma ndànk ci seeni list bàyyi ma mais man mbégte la woon waroon doon ci man ci kaw mooy amul lu may wax di ko ragal ndax benn doomu aadama moo buggul dégg dégg ji déedéet loolu amul <laughs> man moo la am wër gën kañ laa dox ci kaw suuf ba yàlla war ma mun a ab doomu chaque doomu aadama war ko ragal man man war naa ragal doomu aadama man ancien spermatozoïde futur cadavre koo xam ne doxul dara ci mbirum yàlla caaxaankat boo xam ne pouvoir rek la bëgg bakkanam rek la tay la kooku ma war ko ragal man man war naa ragal Macky sal man war naa ko tiit ak ay pexem du tus du nix du dara du tus du nix du tus du dara du tus man maa ko wax Macky yow doo dara Do, tus say sosak, ak say fen ak say kàcc ak man munul ci man nix dara munu ko ci man boko defone sax sigil ma plan ngeen ko tok ngeen waxtan ngeen waxtane ngeen ma boole won ngeen ma ci liste bi mais dama gis ni Ousmane Tunkara moko mujjé man nak bu wesso ay mbirum sax keuyit maanaam bu ñewoon damay denc sama keuyit man <laughs> wallahi la azim seen pexe ko bu ñewoon damay neub sama keuyit billaahi dama ko décidé woon boo leen indoon loolu damay dem wuy ji nëbb sama këyit comme ko amul këyit ne leen xoolal déporté leen ma <laughs> man ñamay ñamay maanaam te ñamay roy dañ leen a déporté te ñamay roy man dañ leen a déporté te déportation boobu moo leen may pouvoir boobu xanaa xamoo loolu ay échelon la ci fa fa yàllaahu déportation yi échelon la fa yàllaahu xaw ma nag ñu xamul déporté boo la ma déporté woon yëkkati ma yëkkati goo xam ni non fa laa jaaree man bunt pale sax man pale damay dugg pale déportation boobu noonu dégg ko ma ne bu ñëwoon damay nëbb samay kayit lépp ne la maa ngi ni clandestin la aw ma dara déporté leen ma wallahi la azim déportation boobu dafa may yëkkati waaye Cheikh xaadimal Moustapha Cheikh Ahmadou Bamba xaadimal Moustapha waaye dañ ko déporté déportation moo ko may li mu yor nii tey jii ñaata at la dëddu àdduna ci saayir xoolal Touba na muy mel ci doomu aadama bàyyi ña sax juddoowul Médina Baye tey boo demee Médina Baye fekk junni doomu aadama dañ ko déporté waaw dañ ko déporté ñi fi màgg yépp am fi daraja nit yi dëlee seen sëtaati sët yi gis nga ñu doon déporté waate seen sëtaati sët yi tey ñoo topp tey sëtaatu sët yi ñu déporté woon déggoo wax ji de dama ne ñañu déporté woon seeni maam ña leen déporté woon seen sëtaati sët yi topp ci ñiñ déporté woon seen sëtaati sët yi <laughs> waaw ba ma buñ ma jógoon pour déporté ma wallahi la azim mbégte gu ma ciy am à bras ouvert laa leen di laa leen di laa leen di gàttandoo à bras ouvert parce que dama ci doon loo xam ni jamono ji mënuma ko ci doon gis nga tey déportation man dama ci doon am bunt doon ci lu rëy lu ngand sax ci kaw suuf doon ci lu ngand doon ci ku am doole sax am ci pouvoir di wax ñuy dégg déportation ma xaw ma na lan la Macky Sall def ba génn ma ci déportation boobu noonu te xam naa ne bu ma nëbbuloon sama kër rek man mënuma déporté man Macky Sall mënuma déporté mënuma déporté duma clandestin am na ay këyiti këyit du ma sax benn këyit kese ay këyiti këyit laa yor ay këyitu këyitu dëkk yor ay visa wu visa wu dëkk di artist du ma activiste kese de di artiste rappeur man laal ma mooy laal le monde du hip hop le monde du hip hop partout dans le monde du ma yow ma ci activiste je suis un rappeur génn ay album am droit ñu protéger ma protection. ma nek un rappeur engagé hyper engagé xex ci ay nguri ngour dekk buma dem feug fa buntu ñu ne ma bisimilah déggoo lu ma wax de dama ne man rappeur la un rappeur mo moy kuy wax kuy kaas lu leen ñi ñi japp sax rappeur souvent dañ leen di c'est lu leen lolu amul ben rappeur bu nek ci kasso bi da ngeen xamul rek de amul ben rappeur bu nek ci kasso bi rapport yi ñu jàpp caat ba ngeen di wax bàyyi nañ ko bu yàgg mu gis naa ngeen def ci photo yi caat bàyyi nañ ko bu yàgg bañ ko bàyyee du léegi rappeur laa la wax de wax ma la activiste man je suis un rappeur monde du hip hop dama ci bokk génn ay album kaas yuuxu

dëkk bu ma dem ne man Mollah Morgun dama soxla asile barke alxuraan ñu jox ma asile ba pare yónnee ma garde corps ñu may garde hmm. man dama am droit wax dama wax avant Macky Sall xeex ci jamonoy Abdou Diouf xeex ci jamonoy Abdoulaye Wade xeex ci jamono ba teg fi Macky Sall man bokkuma ku démb génn démb ak bërki démb di commencé di def live kese la may wax boo ko xeexee ci live ma def ko ci sound nga xeex ko ci sound ma def ko ci cash nga def mu kenn mënuma arrêté dama ci am droit xëy na nag moom calculer nañ Mollah gën par rapport ak Ousmane Tounkara xam ni poids bokkuñu xam ni kii du ab benn muuru muuru bu toog am lu ko metti di kaas respect à Ousmane Tounkara quand respect à lui yàlla ko yàlla génne ci lu mu ne man Mollah Morgun la mu décidé bokkul ak ñoom la ñu man ñoom dañoo toog fii mu doon seen àdduna ñu ñooñu bu leen boo leen déporté yàqal leen mais man <laughs> loo may déporté muy ñëw man damaa toog fenn awma fenn adresse awma fenn monde bi laay wër awma fenn adresse saa yu ma pare ñibbi awma fenn adresse nu mu mën a toog fii tey suba suba laa mën a dagaat léegi billet tamaat beneen dëkk benn benn at mun nga ma dégg ci junniy dëkk benn un damay dem euh, Dubaï damay jóge Sénégal dem Cap-Vert jóge Cap-Vert dem Dubaï jóge Dubaï dem Corée jóge Corée du Sud dem Japon jóge Japon dem Singapour jóge Singapour ñëwaat Corée jóge Corée dem Russie jóge Russie dem island du Nord jóge Islande du Nord dem France jóge France moom mu nekk mu dugg Suisse man noonu laay def <laughs> <laughs> adduna laay wër ñëw toogaat ak ñoom du carter di waxtaan sama passeport feesi feesi tampon feesi tampon ci passeport aéroport bu ne am na tampon aéroport bu ne ci àdduna bi am na tampon continent bi laa wër continent bu yàlla sàkk man teg naa fa tànk continent bi continent bi muy euh, Europe Asie Océanie amul fu fenn ci continent foo xam teguma fa tànk bokk maag moodu moodu bu toog

lu ngeen bàyyi ma nag yéen a ko xam waaye buntu la woon boo xam ni munoon naa ci jaar ngeen dugg ci man ma jaaree ci yéeg ba faw léegi nag koo xam ni moom dafa toog fii ngeen yóbbu ko dey kay xaw a jafe mais man man man dem Sénégal ma neex man ay waaye boo ko defoon dama naan billet gratuit parce que tey même buñ ma defoon loolu man dinaa xamal ne autorité réew ba may déporté ne leen il faut ngeen suivre le dossier

kon loolu bu ma ñëwoon Sénégal mais vacances lay doon <laughs> Macky Sall daf may dóor bi parce que man mënu ma fa téye yor na ay kayit yu may demee te kayit yooyu joxuma ko donc moom mënu ko arrêté kayit yooyu moom joxuma ko këyit yu may yor di mën a dem fu ma neex loolu Macky Sall joxuma ko donc loolu munu ko téye mënu ko nangu donc bu ma ñëwoon tey bu ma indi woon tey vacances laay dem j'en profite sax parce que ñoom gars yi daan namm nañ ma nag ñoom nam namm nañ ma xam nga jaamari ba xam nga jotaaya xam nga ñoom du carter toog xam nga teg zambi yoof waxtaan ba x xam nga xandaalu wëndaalu xale yi ñëpp ak may xaar Sénégal ñëpp ak may xaar dugg biir Sandaga Mawla dugg fii génn fii benn tali teg zambi mais loolu billet gratuit nga ma doon may Macky Sall parce que dama doon assuré comme quoi que nettement comme quoi que man je suis danger mais réew yi dañ c'est réew yoo xam ne c'est démocratique c'est des réew yu am liberté mais yu am droit donc duñ jël doomu aadama sànni ko noonu rek ne ko am yóbbul waa dëkk bi nee nañ ñëw di yow da nga yow assassin nga wala yow criminel am am yóbbul déedéet di demee noonu day yomb <laughs> foofu dañuy assurer samay arrière comme quoi bu ma ñëw doole ma sàkkal pexe doole ma rey doole ma posone doole ma kil mun nañ ma sax boole ay garde yu ma war a garde en attendant ñi ma jox seen këyit ma assure leen nit yéen am na yéen tamit am man gaa yi may bëgg a yóbbu fale pour sànq ma pour sànq ma munu leen ko ci man moom man moom munu leen ko xaw ma kan ngeen ko muy man munu leen ko ci man mais da ngeen may boobaa da ngeen di anticiper sama ñëw da ngeen anticiper sama ñëw vacance bu ngan bi ngeen may may ma toog teg sëm bi naan caayin xam nga xam nga dàqante ci xale yi nekk sama aise tegale samay tànk léegi ba samay taat tànk ma dagaar sama billet dem <laughs> parce que këyit bu ma yor moomu jox moomu leen ko donc yàqulu leen mun leen ma yàqal man ñi ngi di indi moy mun amuñu keuyit yoyu wala bo leen leen indee munuñu man sama keuyit dafa jeexut sama poste la ne damay foo bam neex ma ngeen indi ma fa ma nekk waaw defar sama promotion and ak Ousmane Ousmane Sonko sax man nak ah, ci campagne am bi nek bras droit nek ci campagne bi rek di ci xep kaani ba sama yita tang ma dag ba nan sama attaaya ba sama yaram bi fess dal ak sugar xam nga bëggee happiness bu bege ba nice senegal mo dafa ma neex xam nga fly fu mu tok duggal ay sound parce que amna sound yu bari yu ma bind dugg studio xep ci kaani gëna tangal ba sama vacances jeex ma dagar sama bien nank ñibi parce que bi mom do la ko gis kayit bi mom xamna bo ngi gisé da ngeen jéem nangu mais nangu ko sax taxul ma perte ko donc man mënu leen ma xex man mom bokkuma ci ñi ngeen di sosal di leen fenal di leen sank man mënu leen ma sank kooku dama leen defé yeen mënu leen ma sank yeen gouvernement bi man mënu leen ma sank munu leen ko maintenant loolu amul solo comme yéen dem ngeen ba gisal seen bopp ne ah kii kat nañ ko bàyyi ba ngeen génne ma ci seen liste terru en xaw entre guillemets c'est soi-disant c'est podo terroriste ba ngeen ma ci roccee ah alhamdulilah ci yéen waaye waaye ni ma yàlla naroon dara jaal yàqal ngeen ma ko ko na ma yàlla naroon dara jaalee yàqal ngeen ma ko maintenant ah? wa Sam gis nga de ah? <laughs> ka gars dañ ma yàqal ko ah. dama ci naroon jaare rek dafaru dafaru ba faw dafaru ba faw wallahi la azim malheureusement xaw ma len conseiller ki mo leen kii ko ci liste mais man vendredi lañ ma yëgal ni ka dañ ma doon jigni terroriste waaye rek ma jëli kuris gi di do rek waaw wo sama borom xam-xam ni lan lañuy def manam dara bu la bëggee dal ngay ñaan pour mu gaaw la dal gars yi jox ma ay dog may fëgg bu chaque jour may dama fëgg ba ñi may nekkal liggéey yëpp dañ may wax waaye mais sa waay xanaa da ngay wirdi pour am xaalis <laughs> man non damay wirdi pour lii ngay dégg ni mi def ma bëgg a dal gaaw dal ma wallahi la azim billahi dama wirdi ba benn lu euh, mu tuddati benn euh, benn ivoirien ne ma i les sénégalais i temps yi da nga ñimi kurus gi de <laughs> xanaa da ngay xëcc xaalis man ne non amul xëcc xaalis dama dégg ni am na pexe kat yi yow booloo ne dañ may pexeel léegi ma wur laaj ban wir laa mën a def pour mu pexe bi gën a gaaw a ñëw ci man far malheureusement xoobu nu mu def ba seey man Macky Sall ay jindem seeyal wird ba wird bu dama wird wird wird ba foogoon naa ne heure bii man maa ngi ci loxo yoon muy neex waaw jaaree fa nag Sénégal Sénégal yàqu ba faw Sénégal yàqu ba faw Macky yàqu ba faw ci ci ci fépp ci instance yëpp partagé partout le monde di hip hop un rappeur dañ ko jàpp fenal ko jiñ ko terrorisme génne bu ñu xoolee sama jaar-jaar yëpp amul fenn fu terrorisme fenn xaw ma sax luy terrorisme xaw ma sax bu ñuy terroriser xaw ma sax nan fan fan la les forces terroristes là di toog naan dañuy dañuy dañuy créer <laughs> moom moo ci doon jaaree nag kàccam yi leer nañ ñëpp xam ni ku mën a fen la ñëpp xam ni ku mën a sos la mais <coughs> domage mais loolu garaawul malheureusement yàlla dimbale na ko waaw léegi bu ñu weesoo loolu li ñu war a waxtaanee mooy gis ngeen la xew ci réew mi mais waru leen bett réew mu aji saar am réew mu Macky Sall mythomane di jiite réew mu ministre de la justice munul fenn jël askanam ñay xeex mu jàppee leen ay mbër ba sosal mbër ya dëkk boo xam ni am na ministre de la justice bu na fen ba jël askanam tuddee leen ay mbër yi kaas dëkk boo xam ni président bu mën a fan tegal leen teer deux ans munul daw dëkk boo xam ni ministre de la justice bu mun a fen dëkk boo xam ni président bu mën a kàcc dëkk boo xam ni ministre de l'intérieur bu mënul duur ci ay duur yu kawe tas tas aras duur yu tas aras laa la wax de xam ngeen aras dañ ne fen booy fen day yëngal aras ma ne la man fenu Macky Sall du yëngal aras da kay tas Macky Sall saa yu fenee aras na bum seen ministre de la justice feneti aras na tuuy sen ministre de l'intérieur feneti aras na pouf day tas rek malaaka di dajale saa yu Macky Sall fene booy malaaka yaa ngi dajale aras ah illaahi na cay waay fane dina de saa yu amee liggéey rek waa seen waaja seen seen waajaa wax saa yu dama ne saa yu malaaka yi amee liggéey bu metti rek seen waayaa fa jaar seen président Macky Sall la saa yu fene aras tas léegi nag dëkk boo xam ne président mythomane lañ am bu mën a fen bu mën a fen adduna wéy koo fen dëkk boo xam ne ab Idrissa Seck lañ am ku mën a fen kuy fowee yàlla ay ay xaddiisam kuy fowee yàlla ay soraanam di wax lu ko neex lu mu wax tey def leneen la dëkk boo xam ne ministre de la justice mun a duum dëkk boo xam ministre de l'intérieur mun a kàcc mooy waxee nii nag pour wane degré de de de mun a kàcc xam nga mën naa ne bu mun a kàcc du am kii dëkk boo xam ne président bu mun a duul dëkk boo xam ne ministre de l'intérieur mun a kàcc dëkk boo xam ni ministre de la justice bu munu fan dëkk boobu noonu bu juree aji saar waru leen bett dëkk boobu bu juree aji saar ñu jël ñoom ñu jër aji saar jur ko yaakaar naan ku sa bàyyi duul kat sa ministre yi duul kat say député yi duul kat say merde di ay fenkat ah gone ga bu jógee di fen waru leen bett waru leen bett te ñëkk encadré kula dak dul duul maître ala djou ku meuna a fen moom ngeen gis mom mo organiser loolu mak mané maître ala ba ngeen gis avocat avocat mom 80% vingt yi ay duulkat lañ doon avocat déglul de quatre yi ay fenkat lañuy doon la ma du deug avocat ngay gis ku ray nit mu worne le ki mo ray nit ñu taxaw di ko duulal pour rëccal ko dëgg la wala du dëgg avocat nit bu tëral nit rendi am jour procès mu am ay avocat yi taxaw ne dañ ko ciy génne ku dàqu ko fen kooku avocat Sénégal quatre-vingt pour cent liggéey mooy ku la dàq fen ku la dàq duul mooy avocat Maître El Hadj Diouf ci liggéey mun Fan, la la donc kooku moo jiite mooy avocat ben fan conférence de presse fenkat boobu noonu léegi lan Je suis war a mun qui ci waxu Adji Sarr lan moi, war a best ci waxu Adji Sarr président ba dil ak Adji président moo teg dil ak Adji Sarr mythomane la ministre de l'intérieur moo teg dil ak Adji Sarr maanaam jabaram mooy ministre de l'intérieur moo teg ñëpp gis nañ ni ku mën a duul la ministre de la justice moo teg dil ak Adji Sarr ku mën a fen la maître El Hadj Diouf moom bañ na ko avocat la ku mën a duul la ku mën a kàcc waa ñii wër Adji Sarr lan ngeen yaakaar ne Adji Sarr war naa génnal toqatal dëgg ci gémmiñam kan moo yaakaar ne war na mën a seetaan Adji Sarr dégg toqatal dëgg toqatal laa la toqatal xam ngeen luy toqatal toqatal dëgg kan moo kan ci yéen moo xalaatoon di déglu Adji Sarr fas yéen a fa dégg benn ci dëgg lépp de mensonge bi dafa yuuxu Adji Sarr discours am ba bu muy pare détecteur de mensonge bi mi ngi yuuxu di fàttu noppi yi Adji Sarr lépp boo ko xoolee lu muy wax sax xamu ko desan ba di yëpp xoo ba léegi Adji Sarr xoolu leen nii de Adji Sarr ba léegi discours am xoolul nii xam nga man ma ngi ni ma damay xol ni c'est naturel limay wax hésiter wuma man sama bop limay wax ni naturel ni mo gëna lér lu aji sar do wax ni la def ba léegi xol li ni lay def di lire Ya sama tante ya tante bu fekkee man rusna la xam nga bu fekkee da nga ne ki man dama la jappé sama yaay def nek di lire ba léegi néewu ni jaxran man dama ne leen ni jaxaran dara di leen wax ak yeen gis nga taxawuma ay mom ci boppam buy lire sax day taxaw leçon non si préparation bu xam ni fenkat yi sos xam nga sos mënul rafet fa yo fene dina am buntu détecteur de mensonge bi déjà aji sar le fait que muy discours le fait que muy discours day lire nan ngay réciter lo xamni ne ko dund diko lire tay la len ko laaj lo xamni ne ko dund diko wax diko lire fan la am ñu waxtan touti ci xam-xam loo dund soxlawul liir boo koy raconté day yomb tey bu ma yeewoo damaa ndékki mu liggéey ba wàcc ndékki ndékki bi mun naa la raconté lu ma ndékkee bu ma paree dama julli samay waxtu ma pare sama waxtu dama tëdd nalaw ba ma yeewoo léegi-léegi génnaat naa tisbaar bu mu jotee yeewu naa jàpp julli bu ma paree déglu naa fi samay samay alxuraan ba ma paree ci sama alxuraan après tàkkusaan jot na julli naa ko après taal naa sama portable mais amul hésité parce que dama ko dund di ko raconté c'est facile tout ce qui s'annonce euh, euh, tout ce qui se euh, clairement s'annonce tout ce qui se conçoit s'annonce clairement tout ce qui se conçoit s'annonce clairement amoo loo ba pare di hésiter di ko wax histoire Adji il bi de bi mi ngi bi mi donc Adji raconté d'un ko bu ko parce que la nga dund bu daf la tëddee ci tel jour loolu ko nan la nit mën a fàttee ni nit bu ko tëddee xanaa Adji Sarr dafa am ay problème mu bopp wala nit boo xam ne dañ la tëddee ngaw xam nga jour bi ñu la tëddee surtout de la force dañ la violer kon loolu doo ko fàtte kon bu mu doon ñëw rek de Adja dafa doon ñew ne waaw mardi le 4 janvier le mu ñëk ñew fekk mu fuma tok ma toog maa ngi t-shirt bu ñuul tek ci ben ben t-shirt bu rouge tek ci ben blouson ba ma toogee di ki après ki la commencé bu ma paré ki la ma ray bu ma après ma ne ko li lan la mu ne ma non non non je t'aime beaucoup après ci la ma fóon bu ma fóonee après ma bàyyi non après mu mu dawal loxom après mu ki après ñu ki mais da ngay raconter facilement parce que li viol la donc viol wul ngay déglu ay écouteur di lire <laughs> aji lolu rek boy détecteur de mensonge wonné ni fa ngay fan fen to xamé lolu ne loolu bettuñu nag loolu moom bettuñu duñ ci sa waxtaan dañuy wax ni wax ni la ngay wax ne tay da nga woné fan go xamni fan go xamni c'est extraordinaire lo dund da nga koy freestyle day yomb da nga koy wax da nga koy raconter tout ce qui s'annonce euh, tout ce qui se conçoit bien s'annonce clairement tout ce qui se conçoit bien s'annonce clairement Adji Sarr day hésité ci waxam Adji Sarr day lire Adji Sarr day déglu écouteur Adji Sarr xoolu leen xëppewul xool leen Adji lan ngeen ci bëgg ban débat ngeen ci bëgg je dois être là pour édifier leen que Adji Sarr ay day kàcc kan moo soxla ma warla, quand kan moo xeeb sa xalaat ba ma warla la mun di la xamal ne Adji Sarr day mais day fen Adji Sarr day day tuul duulu tooy xap xapaaral ñu ko jiite ay fenkat lañ yoo xam ne gis nga fenkat un crime n'est jamais parfait amul fenkat buy génn fii ci kaw suuf amul fenkat bu nar a rëcc fii ci kaw suuf fen dafa yomba jàpp boo koy wax dangay ngay hésiter da ngay les mots se coupent les mots se coupent et les mots euh, pour le dire arrivent aisément elle n'est pas à l'aise elle ne s'est pas levé la tête elle parlait un mot découpé entrecoupé di Elle wax yoo xam ken kenn ko di wax ay waxi quelqu'un. non Adi, c'est triste aji aji tu ñi est-ce dans trois ans day dans trois ans day jeex léegi aji yow après quatre d'ici quatre ans lan nga war a doon aji yow d'ici quatre ans lan nga war a doon aji aji d'ici quatre ans wala cinq ans wala dix ans aji après nga war a sëy a aji war a am doom aji mais aji foo ngay jëlee aji kan ban góor yàlla moo lay gis yow aji ci aji la nga say fen mu am quatorze doomu aadama say moroom yuñ faat ñu bëri yaa leen mag aji aji ci say kàcc aji ci say sos aji ci say complot yow aji wàcce nga doomu quatorze doomu aadama quatorze quatorze bakkan rot nañ ci say kàcc bakkan doomu aadama rot nañ ci say kàcc te aji ñoom dañ ko def pour sauver seen pouvoir parce que dañu am pouvoir te ñoom xam nañu pouvoir bi day jeex dans quatre ans donc ñoom aji sànq nañ sa dund pour seen pouvoiru quatre ans bu des xaw trois ans bu des kese léegi trois ans yooyu bu jeexe aji Macky Sall seey maître El Hadj Diouf seey ñoo ñëpp seey ñi ñu dugal leen ci kaso yi ñi ñu àtte ci haute cour de justice aji yow boo toogee yow aji nan nga dunde a dundee sa giiru dundu yow bu la yalla maye gudd fan no aji fo jëm bu la yalla maye gudd fan yow aji fan nga jëm est ce que yow aji suba bo amé dom dom bi dina fier ci yaayam té natou bu ko yalla teg xolal lolu ndaysan yaay ju mëna a fen yaay ju sakal muy fan di fen bu jur dom adam indi fi ben dom adam ni quoi doomu aadama boo xamul sax papam aji fooye nga ndeysaan doom jooju nattu googu nattu googu man xawma doom jooju nan la ñuy def pour génne ko ci nattu googu noonu buñ ko mënee jël sax wallahi yóbbu ko SOS wala feneen pour mu rëcc ci weenu aji saar kooku moom ku ko def am nga ji yoonu jihaad ku mun a rocc doomu aji saar googu ba jël ko ba téye ko mu bañ a nàmp ci weenu yaayam boobu mu bañ a am yaru yaayam boobu noonu kooku yaa ngi sauvé benn doomu aadama boo xam ni xëy na mu lu mel ni Moussa ak euh, kii euh, xudar mu mel ni Moussa ak xudar bu xudar ñëwee jàppee gone ga rey ko musaa di jaaxle naa ko waaye yow doomu aadama bi gone gi nga fekk mu nekk ci moom ay moroomam di foo nga jàpp ko ray waaye yow foo ko teg xudar ne ko waxoon naa la bul ma laaj waxoon naa la ca jëlbeen bul ma laaj mais ca fin ba wax na ko lan moo tax mu rey kooku gone kooku noonu yaa ngi gis donc tey jii doomu aji saar tey bu nar a génnee ca aji saar Adji Sarr nampal ko ci weenu fenam ci weenu kàcc ci weenu sos kooku yaakaar naa ne képp ku ko mën a sauver vraiment boo jëloon doomu Adji Sarr jooju ñu yóbbu ko SOS wala jox ko keneen mu yar ko keneen nampal ko ah dinañ rëccal benn spécimen ci kaw suuf mi ngi ñi ngi ñaan yàlla nag mu mucc ak jàmm yàlla dimbale doom jooju yàlla yàlla yàlla gindi ko sinon rek maare day ah eh, nday ja doom ja ku ko bañ te rek sa donc Adji le discours bi c'est parsemé de mensonges dérisoires par-ci par-là conceptionnés par maître Eladjouf et leurs comploteurs et leurs comploteurs mais dafa ñëwee moment boo xam ni sa gars yi dañuy comme une château de cartes comme une château de cartes ay fen dafay effacé wu te nee naa leen boo leen noppee sax yàlla atte <laughs> da a baax rek jamono ji ñu toll nii amoo koo fii comploté amoo koo fii sàkkal pexe te yàlla du atte yàlla léegi xaaratul yowmal am ne fii la koy atte mbiru Sonko dañ ne bëreet jóg yàlla di effacé yàlla ci boppam di effacé di leen won affaire yi di waxloo gars yi di jëfru te xamuñu ni ñuy jëfroo capitaine ba ñëw jëfru génne procès verbal procès verbaux yi pum mu nekk ci internet bi c'est di jamais vu lan moo ko def kenn xamul capitaine bi jëfru fippu bañ ba génn ñi ngi ko téye ñu ne dof la capitaine bu jàng ba ne arat nekk ak ñoom ay at musuñu wax dof la mais lan moo génne lu capitaine bi lan moo tax capitaine bi yaa yéen xamu leen yéen di dama doole nit bi doole yàlla dellu leen ci yàlla dellu leen ci yàllaahu yaa rahmaan yaa rahim borom doole la moo yor doole gi kenn du complet doomu aadama sàkkal ko pexe fii ci kaw suuf yàlla taxaw capitaine bi bu ko yàlla di wax waxloo dafa jëfru te xamul lu ko jëfruloo PV yi la sànni ci internet bi ñëpp jot ci débat ci moom ci boppam moom mi sànni PV yi mu pipp moom ci boppam taxaw ne hey dama leen di wax dëgg ji ba tey ñu ngi ko téye mu ngi ci kaso bi léegi lu ko wax loo loolu du moom de bu doon pexem kese kese kese mun na bañ a wax mbokk aji saar yi la leen indi ñuy wax <laughs> jëfru national la la leen indi ñuy wax kenn mënul téye seen gémm yi kenn joxu leen kenn waxalu leen kenn fexelu leen borom salon ba ba muy ñëw di seede kenn joxu ko dërëm lu koy waxloo xamu ko yàlla kenn du sàkkal doomu aadama fii pexe ci ay sos

munul yàqu tànk génnewu ko tànk génnewu ko publiquement munul yàqu xel bi pexe ba ngay am ci sa biir xel du fa yàqoo parce que yow yaay toog xalaat bu ma defee lii def lii lii la may jox bu ma defee lii waaw dinaa ci génn kay si si si pexe du yàqu cim xel ci biir xel pexe du fa yàqoo léegi nag boo ko génnee lañ na càmbay wi nga doog a xam ni sa pexe yàqu na nga doog a xam ni gars yi comprendre nga doog xam ni la nga doon pexe ndekete la nga foogan ne xel la du xel moor sama sama papa na ma pexe du yàqum cim xel moor donc ñoom lañu ñu jàppoon seen réunion yañ defoon ak Adji Sarr yóbbu Adji Sarr ci Macky Sall ñu toog pexe ko waxtaanee ko defar ko mu rafet ñu libale ko ay fen naay sal ko peinture ko capp-cappal ko maquillage ko def ko lépp nag lii moom day passé comme vaseline day romb day rafet kii moom kenn mënu ko téye <laughs> yàlla moom ak mbaaxam ak pouvoir am croiser les bras di leen xaar nee na maa ngi xaar rek ba ngeen génne ko man kun fa yakun manam buur bi man moom maa leen moom moom ki ngeen di pexeel sàkk leen sàkk ki ngeen di fexeel maa ngi xaar rek ba ngeen génne ko ma won leen ni man maay buur yow Macky Sall doo buur man malin len kili kilife len yen ñep yow Macky Sall doo ci lan bañ ko defé ak seeni pexé ay weer lañ ko toog préparé ko nak motax seen ya fu nekk nii seen conscience tranquillul amatuñ jàmm ay weer ñukay pexé ay weer ñukay préparé ay weer ñukay xalaat ay weer ñu bu jaaré ci avocat bi dem ci avocat bi ñi ngi jëfuru ñi nga reyante seen biir ñaari avocat yi barki dem ñi ngi bir palais de justice du dorante ay ñaari avocat ya ña nga palais di dóorante ay kurfeñ ya ko def defuma ko bindu moko nanga lu leen di jëfruloo kan ti yeen mo mo leen pogné di leen lo yéen tay jii ñëpp gis dossier bobu tay ba tay kenn demul demuguñ sax procès ñëpp xam nañ dossier bobu Sénégal lan la yalla mo léral yalla moo tax buñ lay fexel buñ lay fexel del wax yalla na yalla léral mbir buñ la yalla ma yalla may ndam de neel yalla na ma yalla yalla na yalla léral mbir yi parce que bo ne yalla nu may ndam rek dafa am yow yaangi sa bop déedéet bu ñu lay fexeel ne yal na yàlla leeral mbir yi yal na yàlla leeral kese ngay ñaan te xam naa ne Sonko xam na loolu yal na yàlla leeral mbir yi bu fekkee maa def day leer bu fekkee ñoo def day leer yal na yàlla leeral mbir yi yàlla nekk ci digg bi doon juge doone yàlla na ma yàlla sauvé wala yàlla na ma yàlla ah déedéet na yàlla leeral mbir yi nga def la la yàlla sant togg di xool yàlla day leeral lépp ñëpp gis nañ PV yi génn kenn génnewu ko commandant ba wax colonel ba wax kenn wax loowu ko mbokk aji saar yi génn wax kenn wax loowu leen ñu met Diouf mel ni ku dof ñu monte tey jii benn jigéen joo xam ni ca àdduna bi da ko caaxaane bañ biiral ko xale bu ndaw yàq ndawam ca jamonoy Blaise Diagne xale bu tuuti ñu ne vingt ans foowee àddunaam yëpp ñu ñëw tey ñu ñu muural ñu ko ñu muural ñu ko bu ñu gëm loo lan elle est vraiment saine waaye yéen may la ñu possibilité man de bu ma fa newoon journaliste aji kañ nga muuru parce que ñun photo yëpp ñu gis amul fenn fu aju muuroo kañ la aji baax kañ la aji defaru loolu war nañ ko journaliste yi war nañ ma c'est loolu en fait questionnement la ci background nit maanaam euh, nu ñu koy waxee tey euh, maanaam ci nit quoi euh, waaye am na am na am na ay kii enquête de moralité yéen journaliste yi ngir yàlla yokk leen seen bopp yi c'est pas parce que dañ ne journaliste nga nekk journaliste rek doo jàng dee leen continuer di jàng yéen journaliste yi mais gone koo xam ne gis ngeen ko Sénat bi ay mbirum sexe rek la doon def ay caaxaan wane weenam wane taatam xëy Adji Sarr muuru ngeen def seen enquête de moralité boo ne jàkkaaroo Adji Sarr nag waaw Adji ban moment nga jógee ci string yi nga doon sol yi xat yi nga doon sol yu dang yu nga don son sa taaj ya nga don woné sa sa sa wén ya nga don woné nga xey rek muru légui ban moment la ak lan mo def déclic bi lan mo indi déclic bi nga joggé ci string joggé ci ayu xat joggé ci ayu sexy nga ñëw ci muru lan mo la ko def c'est occasionnel wala ci digënté bi dang ci dang da la ci feñu wala dang ci jang alcorane wala mu indi la lolu enquête de moralité la lolu ci la bokku parce que nit ki bu ñëwee di sos rek ay enquête dem moralité lan moo tax nga taxawee ni Adji Sarr ne la ah man de buñ ma violé après bu ma ca paree dama tuub dem ci yàlla jàng naa li jàng nag waa Adji Sarr waa léegi yow taral ñu xulu allahu wala onze bi rabi fallaxi wala euh, ayaatu kursi et cetera et cetera ñu xool par déclic boobu kañ la ko am

émotion sénégalais yi <laughs> non aji saara bon allah akbar ay waay yi xeetu jigéen yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal waaye waaye yàlla nañuy dand sori yàlla bu ñu am doom wala nit bu ñu xam sax bu nuroog aji saar yàlla nañu yàlla musal ci xeet bu mel ni aji saar dand sori ko ci lépp mi ngi bëgg a dox ci sentiment wu Sénégal te lépp nag ay ñoom maître El nga xam ni politicien avocat mun a duul mun a fen ñoo leen monté aji sar ñew na yéré dox ci sensibilité sénégalais muuru yërem tëlu ak cadeau xam nga kenn musul gis aji lan mo leen indi loo aji kan mo leen laaj aji saar kañ la aji saar commencé wara génn kañ kañ la aji saar wara mëna génn muuru zëgg waxul ak ne wa man bal na leen ak yàlla ñi sama der di wax ñu ñep xawma leen no saytaane bon la ilaha illallah saytaane nu ne lay génne ay waay aji sar day yàq nañ xale bi waay taa pap mais lu yàqu la woon foos moom sotti ci mbalit day yomb force, sotti ci mbalit day yomb dama ne foos sotti ci mbalit day yomb pax sotti ci mbalit day yomb lu yàqu nga yàqaat ko wala yàqeet yàqu yàqeet no ci am wala defar lu yàqu yaxeet nga koy def wala nga defar ko ñoom dañoo fekk lu yàqu yaxeetal ko Adji Sarr bu baaxoon am valeur am vertu kenn du ko yàq Adji Sarr bu leen wax loolu de Adji Sarr dañu fekk mu yàqu ñu yaxeetal ko dañ cee yokk adjectif yu yaxeet mais Adji Sarr dañoo fekk mu yàqu kon ne ko am vingt ans foo depuis kenn xamul Mathusalem taxaane sa adduna ñëpp xam la ci oyof sër fu ñu wax ni jaaykatu portable yi xam nañ la jaaykatu mango yi xam nañ la ñii sàcckat nga ñu ñoom ñoo la ko seedal de man moom du xaw ma la donc tey jii sa mboneel moo la yóbbee lii lépp am na jigéen yu am valeur yu am vertu yu nekk Sénégal yoo xam mënu la leen def loolu ñu def loo aji saar am na ay jigéen vrai ay ñu jàmbaar wallahi boo leen joxoon milliard duñ dof aji saar wallahi la azim am na jigéen tëgg yu nekk Sénégal yu gore sax yu bañ yoo xam ne milliard boole leen joxe joxee duñ def ni aji saar mais am na jigéen yoo xam ni cinq mille francs dañ leen di tëddee Sénégal comme nu amee lu baax la la amee lu bon donc ils ont utilisé lu bon bonal ko yaxeet loolu kese la maintenant lépp mooy ñu fexe leen delloo parce man sama wax yëpp fa lay daanoo ci yàllaahu suñu borom subhaanahu amul nguur gu jeex am gëm ngeen loolu amul nit buy dund fii te du dee am gëm ngeen loolu dama ne Macky day toog am na photo bu Macky Sall toog am Ousmane Tanor Dieng ci wetam à droite Ampa euh, lom toleti, politikyan wawo. Temde, temde, hmm. euh, jè oubliye son nan la, koman yi sape lanko. Gen adena. Bway, yon kote toway. Politikyan vi. Foto vi, amna makisal, nan apajiboka, keneen benen pa bi nga xam bu muy dee bant sax la yoron j'ai oublié son nom là c'est pas Tanordien il y avait Tanordien danso Macky Sall la ngi tok ni Ahmad tok ne tanor Tanordien tok ne ak ñeneen ak ñeneen yalla ne për fat Ahmad Dansokho bum Ahmad ko sey mu indi ko tek ko nak ko kaay yow ñu wara atté yalla na Usman Ousmane Tanor dien bum yóbbu nako kay baye fa Macky Sall est ce que Macky Sall boudé nit la warna na ni boudé nit la warna na xalaat li fi jélé Ahmed Dansokho jélé fi Ousmane Tanor dien jélé fi djibou layti Ka du fi baye est ce que Macky Sall dina togg di ni ñe dem wuy ji yalla wa ñom lan lañuy wax yalla te pourtant plan yu bëri yi ma def di sank sama askan ak di rey doomu aadama yi man ak ñoo ma ko doon waaye ñii lan la ñu war a wax yàlla est-ce que Macky Sall am na cerveau bu muy toogee di kalaat ne lan la am Ahmed Dansokho fas yéene war a wax rendre compte yàlla. est-ce que Macky Sall am na xelu xalaat ni lan la Ousmane Tanor Dieng wala rendre compte yàlla la jëlee Ahmed Dansokho ci góosam jëlee fa Ousmane Tanor Dieng est-ce que dina ko fa bàyyi déedéet est-ce que moom xalaat na loolu est-ce que moom xalaat na ni.

nu ngoon neex neex neex xam fooy fanaanoo ko gën lu ngoon neex neex neex xam fooy fanaanoo ko gën lu guddi neex neex neex xam fooy fanaanoo ko gën guddi gi mun ngeen nekk di bégee di enjoy di yëpp mais yow est-ce que après boo paree lépp foo war a fanaani donc nu àdduna neex neex neex nu àdduna naqari naqari naqari mais yow mal xiyaam lañ jëm foofu lañ dëkk fii dëkkuñu fi de koo fi gis nu mu fi yàgg yàgg dina fi jóge démb démb démb rek la fi coon sekk jóge démb démb démb léegi nag fii du fi mus a ñëwati mais fële fële lay des à vie imagine toi nga des foo xam ni sa waay du la neex mukk ci safara rek muy tàkk rek tàkk safara gudul fay muy tàkk rek nga des fa sa sa lu la des yëpp loolu mooy dund loolu naan giiri dund fii amul giiru dund fii dund koo xam ne la day jeex la giiru dund mooy yowmal am foofu c'est à vie c'est à vie fii mënoo fee dund plus de cent ans fee da nga fay dund dix mille vingt mille trente mille quarante mille ans à dootul jeex est-ce que man sama fii nga xam ni matul sax cent ans war na ma gënal ma tay la sama lépp pour fële nga xam ne c'est éternel fii c'est temporel mooy luy jeex la dafa am temps fee ne c'est éternel éternité Le jëlee fi Ousmane Tanor Dieng jëlee fi Dansokho du ko fi baye. te ka fa jëlee dinañ ko rendre compte à la kulli Waxu ñu sax ay nguur gi jeex dans 3 ans 4 ans mais après léegi lan mo jar ci aduna? bañ lay utiliser ngay felal doomu adamay di sosal doomu adamay. lan mo la ko war jaral Sénégal nag moom da ngay gis ku dund ci caaxaan ba dee ñu génn ay affaire nan amul ku gën a bon ci àdduna sax doon na wax lu rafet mais est-ce que du ko doon jëfee da ngay gis ku caaxaane àdduna yëpp dee gars yi indi ay waxam mais wax ak jëf ak a ñoo wute wax ak jëf ak a ñoo wute nit mun na wax lu rafet fekk jëfam yëpp baaxul mais pour nax sénégalais yi ñu nax seen bopp di kàjj seen bopp yi di kàjj seen maay yi dañ lay indil ay waxam ne saan gisoon na deem de ak bëri xam-xam ak bëri nangam déedéet bu leen xoolal laaj leen kii lu ko àddina jaraloon laaj leen kii ci lan la doon dox laaj leen kii est-ce que ay jëfam mais waxuñu ay wax wax dafa yomb wax dafa yomb man nan laa mun nan geen ma mun a indilee ay waxu nit ma war ko mun a juger du ma juger nit ci ay waxam. ci ay jëfam laay jugé te gis nga ko yow jaxaran na mu doon doxee fii ci jiital alal jiital adduna jiital caaxaan jiital ay foo jiital ay way jiital ay fecc jiital ay mbir jiital ca adduna caaxaane adduna bam na farax nga bàyyi jëf yëpp indil ñu ay waxam kese nañu ay kaa leen déglu ki waay waay moo amoon xam-xam ay waay gisoon na lii de ay waay ñoom dañuy foye seen bopp mais yalla mom mom ab tek tekaral ga day tok rek di len seetaan nan fo len rek da ngeen yaakaar ne dama len wacc ci souf pour ngeen tiaxan fo len rek naxante len rek cëpp mhm. cëppi len rek tôt ou tard ngeen wacc fi ci man tôt ou tard dina jàkkaarloo lo yeen te duma laaj kenn say wax say jëf la lay laaj ci say jëf la lay atté loolu la yalla wax ci say jëf la lay atté te jëf nga wax te kooku fenkat nga kooku foo tib nga yàlla war la attewaat foofu mu ne leen wax leen rek cëppi-cëppi leen rek mu ne man maa ngi leen di xaar ci seen i jëf yàlla mu ne ci seen i jëf laa leen di atte ngeen bëgg ñu gëmloo ay wax kii wax na lii kii wax na laa bàyyi leen seen xel yi ngeen di nax te ngeen tuub jëm ci yàllaahu bàyyi leen seen xel yi ngeen di nax te ngeen dellu fa yàllaahu xam ngeen bu baax la leen wax dofu leen jinne jàpp leen nekk leen ci caaxaani yi rek nekk leen ci caaxaan yi rek nekk leen ci caaxaan yi ba yàlla na leen faraj fàdd jël yóbbu di ngeen comprendre ba xam yàlla seen wax yi lay jàpp wala seen jëf yi ak yi wax yi leen la ba xam méngoo naam donc aji saar ah tuub du wees de bés boo taxawee jéggalu suñu boroom ci kaw suuf won adduna bi yëpp ne da nga doon fen won adduna bi yëpp ne da nga doon kàcc won adduna bi yëpp ne alalu adduna moo la yóbbee lii won adduna bi yëpp ne naïveté moo la yóbbee lii won adduna bi yëpp ne da ngaa sosal gor da nga fenal gor nga dem nga tuub nga baalu nga jéggalu ko mu jéggal la nga tuub jéggalu sénégalais yi ñu jéggal la xaw ma nag nooy def ak quatorze morts yooyu yi nga xam ni say fen moo leen yóbbu àllaaxira loolu nag moo ma des waaye xam naa ñun moom bu dee ñu ngi dund Sénégal yëpp amal nga leen àq na nga toogee wax noonu yaakaaroon naa tey da nga doon ñëw pour tuub pour jéggalu wallahi la azim da nga doon ñëw pour toog pour tuub pour jéggalu suñu borom même bu la El Hadj Diouf tegalee film sax mënoon nga ñëw rek tey rek nga mënoon ñëw rek defaru ba faw ne ah man de salaamaaleykum defal nañ ma benn feuille pour ma discours discours ma discours waanu ma bu kenn coupé nag mi ngi nii ñëpp a ngi seetaan dañ maa dañ ma fenloo maa fen dañ ma sosloo dama damaa sos liñ ma wax loo yëpp du du dëgg Ousmane Ousmane Sonko dama ko fenal dama ko sosal El Hadj Diouf jommi ci jàpp bopp bi nga ñëw wax loo xam ni tey ngay jaaree rajaxe lépp rek rek lépp ne leen lépp montage la lépp ay fen la lépp ay kàcc la xool naa ba xool xam ne lii du wéy ñii dans trois ans dañuy seey te duñ ma yàqal sama adduna duñ ma yàqal sama yowmal xiyaam duñ ma yàqal sama nag ba ñoom ñëpp jommi ñëpp baalu Sénégal yëpp ne leen pare naa nag naa dee nañ ma rey sax naa dee na ma lépp na ma rey tey tey tey tey nag tey la bés wax jot te maa ngi baalu Ousmane Sonko bi ma fenal di ko sosal te lépp ñii la ay nitu safara lañ nag te ku ñu àndal da dem safara ay ngay safara kese lañ yor la ñuy doxee seen jëmm yëpp safara lay tàkk seen jëmm yëpp safara moom la ñuy xeeñ wallaahi xetu safara lañu yor xetu safara lañ yor ah déjà c'était même pas en direct ok c'est déjà préparé coupé collé coupé décalé et cetera c'est même pas en direct d'accord donc nous avons un direct nous direct de day c'est sûr day jëfru mais hum, Adji Sarr un na Sénégalais y a Ousmane Sonko en premier lieu di Dom Adama, buñ sosal buñ fenal buñ taqal buñ tilimal te yalla yëkëti nako lañ doon ko nañ ridicule comme le ridicule ne tue pas moo tax nga gis leen ba léegi ñuy traîner mais très sincèrement Ousmane Sonko yàlla siggil na ko de yàlla sargaal na ko yàlla yëkkati na ko très sincèrement depuis boobu Ousmane Sonko lu mu amoon non musu Ousmane Sonko musul mel moo tax il faut battre la fer quand il est chaud bu mu leen bett parce que son Sonko jamono jii xam na ni yàlla taal na ko de ku yàlla tàccul nag sa waay boo feccul doo feccati de moo tax Ousmane Sonko seetlu leen buñ ko bàyyee ba léegi toogul <laughs> yàlla nag da ko baaxal nag ni ku yàlla baaxal la. moo tax dëggu rek moo am solo boo leen dëggoo même booleen wéetee jàpp leen ni ku gën a rëy moo ànd a yéen mu yàlla booleen leen dëggoo wéet ci seen bopp bu leen jàpp ne dangeen a wéet jàpp leen ni yàlla ngeen àndal yàlla ngeen àndal ngeen gën a gëm ni ndam ngeen di am boo nekkee ci ay mbir àdduna yi wër leen jàpp leen yéen a ngi ci kàcc boo leen nekkee ci ay mbir lu bari ci aduna wër leen wax bari tiit leen ci seen bop japp ni yéen ngi ci katch nekku leen ci dëkk bo leen wété ci seen dëkk japp leen ku gën ngand ci aduna ak yowmal ma ko amul xajul fenn ko xajul fenn ngeen andal xam nga ay nit lu ñu ngand ngand amna fuñ fu ñu xaj waaye am na koo xajul fenn xajul fenn lol ngeen di andal koku mo gëna reey lo gis donc andak suñu borom mogen gën andak lu ne vraiment yaakaar naa ne tey ñëpp gis nañ ko théâtre la film la ab gone guñ muur gone caaxaankat guñ muur koo xam ne dañ daa ëmb sax mu naan kii moom ëmbal keneen kuñ muur mu yërëmtalu di liir di hésité di jaxase xel ma nax saay très sincèrement nañ ko ñaanal waaw nañ ko ñaanal parce que yàlla moom mun na lu ne yàlla mun na lu ne waaw bu nekk ci moom yër yërmande rek laa gis ci moom ndeysaan maa ngi koy ñaanal nag pour yàlla gindi ko ba mu ñëw tuub parce que Adji Sarr mënutul dund tant que tuubul Adji Sarr dundam du ci fitna lay dund ba tant que tuubul ci fitna la Adji Sarr dund ba suñ jon yàlla tey jii wallahi billahi Adji Sarr ci fitna la ne ci fitna gu metti boo leen xoolee kanam gi Adji Sarr dundul sax ndeysaan ku xamoon Adji Sarr avant mun na ñëw seetle ne Adji Sarr bu mu gis tey du Adji Sarr bu mu xamoon baayam ak yaayam bu ko jur muñ taxawoon xam ni seen doom bii juruñu bii xottu kese la yor Adji Sarr nekkatul Adji Sarr perte na réseau bu yàgg Adji Sarr di doon wax ni xamul sax nekkatul sax nekkatul sax gars yi dañ ko yàqate yàqet yàqet yàqet utiliser ko te lépp nag pour pouvoir aka ko jaral pouvoir dañ ciy rey nit pouvoir dañ ciy sosal nit gis nga sosal na fi maître El Hadj Diouf euh, sos astafurlah sosal nañ fi euh, Assane Diouf ci pouvoir pour sàmm seen pouvoir sosal nañ fi Assane Diouf sàmm seen pouvoir sosal nañ fi Ousmane Tunkara ci sàmm seen pouvoir sosal nañ fi Ousmane Sonko ci sàmm seen pouvoir sosal nañ fi Karim Wade ci sàmm seen pouvoir sosal nañ fi Khalifa Sall ci sàmm seen pouvoir ña ngay sosalaate rek donc pour sàmm seen pouvoir dañ ciy rey nit. dañ ci sosalaate dañ ciy fenalaate dañ ciy fexelaate kan moo war a ànd ak ñooñu nitu safara yooyu ngir sàmm seen pouvoir rek ñuy sosalaate di fena di ci rey nit quatorze morts yaa yu quatorze morts maintenant démb gone gu newoon Ziguinchor dee na quatorze morts ci sàmm seen pouvoir ak benn doomu aadama bu ñu sànq muy muy Adji Sarr muy quinze Adji Sarr dundutul dee na bu yàgg aji sar dundutul deena bu yag xottu la rek bu wi ndax sey ki da ko don wax seigne fàllu mu ne da ngay gis ab nit muy lambar lambari fek deena bu yag deena bu yag nga gis nit bu dee di dund nit ñaata nit ñoo fi gin aduna te tay jii ba legi ñi ngi wax ci seen ci seen jëf ba legi ñi ngi ngi leen di célébrer muhammad sallallahu alayhi Wasallam kan kañ la kañ la kañ la ba léegi ñu ngi célébré ñu ngi koy célébré si eh, Cheikh Ahmadou Bamba kañ la làqu ba léegi ñu ngi koy célébré Baye Niass kañ la làqu ba léegi ñu ngi koy célébré Limamou Laye kañ la làqu ba léegi ñu ngi koy célébré Bougounta Ndiassane kañ la làqu ba léegi ñu ngi koy célébré waaye nit dina dund di dox ak yow fekk deena bu yàgg deena bu yàgg booy bu max muy daanu Adji Sarr deena bu yàgg mooy quinzième personne quatorze lañ rey ak Adji Sarr ñoo a Adji Sarr de Adji Sarr jamono ji muumin la muumin Dan Bouyang, 14 morts. Et Adji Sarr, 15. 15 morts, nous 15 morts, nous Pour nous sauver son pouvoir. Et son pouvoir ne sauver où Son pouvoir ne nous sauver où C'est fini. Wallahi, c'est fini. Moi, je vais vous je vais vous dire, je vous dire, je vais kan la fi tek lay wër kan la fi tek ku mu ko mëna sauver ba mom ak njabotam duñ dem ci kasso bi ba mom ak njabotam duñ fokkati luñ sacc ba mom ak njabotam lolu motax mu maître idriss avec à ses côtés protéger ko pour après bu sé idriss Seck war mëna ñëw cëpp ci manigance mais pexé du ci xel pexé du ci xel makki fu nekk kenn kessé lañ gis ni mo meuna jël pouvoir bi mu Ousmane Sonko té xam nañ allah kulli al bu ñëwee dalen di ñom ñëpp lay faat ñom ñëpp way wacc donc lolu motax ñi ñu koy jéem fexel mu jël Idrissa Seck maké du dem 3e dé Idrissa Seck lay taf door taf yëngal sacc élection yi pum jox am idi demal comme ça samay rak samay goro samay jarbaat samay dom samay ñëpp ma mëna a sauvé wu lolu la Macky Sall di wut jamono ji mais du dem de pexe du yàq ci mu xel de Macky sa yaakaar dina tas de te yow xam nga loolu Macky Sall gëstu na fu ne mystiquement ñu xamal ko ne day daanu gëstu na franc ñu xamal ko ne day daanu déglul de Macky Sall mis façon sëriñ bu mu dem bu mu yaakaar xool na xamal ko ne day daanu pare na dem na ci franc-maçon yi xool xam ni day daanu dem na ci jalan yi xam ne day daanu dem na ci xërëm xam ne day daanu fu mu dem ñu xamal ko ne booy bii la fi jële Moussa ak Firawna fu mu dem ñu xamal ko loolu léegi benn pexe la am mooy kakanara daane mu tëj ko ci kaso yi jamonoy élection xam nga ko du ko daane mais moom dafa oublier ni booba mbedd bi moo koy daane déglu leen wax ji de foofu laa leen di tëjee ma ne Macky Sall dem na ci formation yi gëstu ñu woon ko ne day daanu mu dem ci jalan yi ci lëndëm ñuul yi ci mbir ci jëf yu ñuul yi ñu xamal ko ne day daanu mu dem ci mystique bi ñu xamal ko ne day daanu mu dem ci sëriñ yi ñu xamal ko ne day daanu ñu xamal ko ne booy bii moo lay daanu Moussa ak na la c'est fini mu jël Idrissa Seck taf yëngal ak moom taf ci wetam comme moom mooy naafiqoona bi moom sa Seck naafiqoona kaay léegi idi man mun naa fexe nu ma fexe ba fexe fexe ba jox la nguur gi comme saa nga sauver ma sama njaboot sauver ma samay doom sauver ma samay jarbaat sauver ma ñëpp ak sàcc beeg lépp lu ñu def doo ñu laal. idi ne ko waa amul problème man maay def sale boulot bi naa fi xoone bi amul problème man je suis d'accord moo tax sa Seck ñëw taf ko léegi comme moom xam na ne loolu day am daanu bi allah kulli al day am mu ne bu ma tëjee Sonko xëy na kenn du fa nekk kon Idrissa sekk dina mun a ñëw mais boobu dafa fàtte ni. dafa fàtte ni pexe du yàqum cim xel parce que boobu tëj bu muy essayé gis ngeen essayé na tëj Ousmane Sonko mbedd ma génn kooku loolu lancement la te xamul ni même bu ñu demee ba élection yi bëgg a jege mu bu ko tëjaat mbedd ma day génn <laughs> yàlla moo bëri pouvoir de bu dul Ousmane Sonko kese ci kasa walay dee mais dafa am yàlla dafa bëri ay pouvoir est-ce que xam nga ne bu tëjoon Ousmane Sonko tëj mbedd mi yëpp yàlla indi beneen pouvoir abraha ba mu jógee naan day dem pour daane kaaba ga <laughs> lu ko fa jële mais ay nit jëlee wuñ ko fa de ay jaasi jële wuñ ko fa de ay paaka jële wuñ ko fa de yàlla moo yónni ay picc def ci ñoom jox leen ay ay xeer yuy tàkk safara ñoo picc yi di na di tëmbal xeer yi <laughs> loolu moo rey abraha allahu akbar ma ne la dafa doon jéem a sànku Ousmane ko mbedd ma génn kon tey jii moom jàpp na ni foog mu tëj Ousmane Sonko bu du fekkee élection yi pour sa Seck mun a ñëw taf yëngal moom jël pouvoir bi sauver ko moom ak njabootam ñu rëcc yàlla ñëw wàccal ko mbedd mi moom gisuloon loolu nag pexe du yàq ñu xel may jàppul woon ni mbedd mi dina génn moo tax da leen bett jàppoon nañ ni mbedd mi du génnee nii seize morts quinze morts quinze morts quatorze la ak Adji Sarr muy quinze morts donc gis nga nu mbedd mi yàlla yónnee mbedd ma bu tëjoon mbedd mi yëpp te boobu tëj na junni mille cinq cent personnes ñu ngi ci kaso bi de mais teewul mbedd mi génn na tëj na Guy Marius Sagna foog ne mbedd du génn avant tëj na euh, euh, mu tëdd foog ne mbedd mi du génn tëj na waa Pastef foog ne mbedd mi du génn tëj na Assane Diouf foog ne mi mbedd mi du buuf génn mu jaaxle moom moo tax muy ay wax terroriste moom pour moom gars yi dañoo yor ay milliards yónnee Sénégal gars yi génn ay dafa jaaxle ku dem bay sa bay bay jiñ ba jiñ jiiñ ñi nekk ci kaaw bi nam ay ay Ousmane Tounkara Ousmane Tounkara daa mën a wax lu Ousmane Tounkara daa mën a génne sax seen waa kër Ousmane Tounkara mënul génne seen waa kër wallahi la azim mënul live ba yëkkati kenn si seen waa kër génne ko kooku lu lu ko booleeg terrorisme Ousmane Tounkara daa xam sax ta jàng sax le terrorisme Ousmane Tounkara tey boo duggoon ak moom le terrorisme xamul sax filialu terrorisme xamul sax financement xamul dara ci terrorisme man gëm naa ne Ousmane Ousmane Tounkara amul xam-xamu terrorisme xamu ko sax xamu ko sax liirul bouquin yi xamu ko gëstuwu ko wallahi la asim donc moom mbedd mee ko jaaxal mi ngi xool kan mooy commanditaire mbedd bi te dafa fàtte ni mbedd mi amul commanditaire yàlla moo yónni mbedd mi te boo tëjoon mbedd mi yëpp wallahi yàlla yónniwaat leneen <laughs> doole yàlla kenn loxo du ko téye yàlla buy ñëw dooleem loxo du ko téye Macky Macky yàlla moo ne da nga fiy jógee ci mille vingt trois bi amul loo mun a def boo reyoon askan yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp da nga fiy jógee yàlla bindam bu bindam kenn du ko effacé yàlla bu ne da nga jóge jógee yow Macky da jóge boo rayoon nit di dang fii fiy jóge nga tëj opposant bi da nga jóge nga suul ñëpp dang fii fiy jóge parce que xam nga nag nga fiy jóge yow boo munul dem sa yàlla rafaat la léegi <laughs> benn pexe la rek laa lay dama ne yow boo rayoon ñëpp da nga bu yàlla ne da nga fiy jóge da nga fiy jóge parce que yàlla dalay ray yow tam <laughs> boo rayoon ñëpp ne léegi comme man mooy Moussa laa lay jox Moussa Moussa bu nga xam ni moom pouvoiram dañ ko xamal ne ko ab gone ku góor moo la fiy jëlee Macky Sall Moussa la de euh, euh, Firawna la Firawna l'histoire de Firawna mooy ñëwaat foofu dem leen jàngi dafa am solo na mooy ñëwaat na bu mu gëstoo ñu xamal ko ne ku góor dalay jële fii moo la fiy jëlee daf ne lépp lu fi waaye jur ci góor dañ ko war a rey commencé di exterminer képp kuy góor juddoo fa Muusa rey eh, Firaaw na rey na la waaye ka kay daane yàlla indi cofeel ci dëkkam la màggee këram la màggee jabaram la <laughs> moo ko màggal <laughs> tey suñu borom <laughs> aka yéeme allahu akbar tey suñu borom aka doy waar ak ak kéemtaane macha allah moom Firawna Muusa rey na ñu ne sauf Muusa mu màggal Muusa Muusa lekk ci ceebam naan ci ndoxam te Muusa ko fa jële donc yow boo jógoon di fexe ak loo fexe fexe fexe deux mille vingt trois yàlla da nga fiy jóge boo reyoon ñëpp bañ jeex tak que la fiy jëlee que la fiy jëlee doo ko rey dina sax bokk ci yow jëlee la fi yow dina bokk ci yow jëlee la fi wala yàlla suñu borom jëlee la fi pour muy jeex léegi wax ji jeex na kon nag magi dalalal sa xel rek comme dem nga fu ne ñu xamal ne da nga fiy jóge gëmal ne di nga fi jóge boo deewul di fi jóge bu la fi peuple bi jëlewul di fi jóge bu la ëpp Macky euh, Ousmane Sonko jëlewul ding fi jóge jappal ni ding fi jóge kon gëmal defaral say bagage rek te xam ding fi jóge la nga wara dund nak comme dunduloo ko askan wi yow tam nangul ñu dunduloo la ko da nga tej ay doomu jambour da nga faat ay doomu jambour nga ngaa ay bal ci ay doomu jambour da nga genn ay nerve ñu yor ay fetal di tiire ay doomu jàmbur yooyu doomu jambour nga la nga dundulo andirelo doomu jambour yi tej doomu jàmbur ray doomu jàmbur yi fenloo doomu def say montage jël ay doomu jàmbur sacrifier leen sank leen pour ñu sank ay doomu jàmbur kon nag maki gisuma loolu noo ko mën a defee jàpp ni yow mun nga dund ba dee te yow doo dund la nga dundloo doomu jàmbur munul yow yaa def lu war a tax ngay dund li gëmal yàlla nga xam ne la ngay dund yow yaa ko dundloo doomu aadama yi donc di nga ko dund ala kulli yàlla allah kulli mag yi yow day say tëj wóoruma waaye day boo jógee ci nguur gi sa àdduna yépp ci fitna lay dox ndax tëj say doom dara gënu ko met ndax tëj nga doomu jàmbur kane wàddi doomu jàmbur la bàyyi ma la yar da tëj da ko tëj est-ce que xam nga ñaata temps la Abdoulaye Wade toog en tant que mag di galérer taawam bu góor benn doom bu góor nga ne ko ràpp ci kaso un deux ans trois ans quatre ans baay ji di dee ak misère baay ji toog ay guddi yum nalawul di jooy nan waaye sama doom ji Macky sàll ak li mu ko def tey moo tëj sama doom bii biologique moo ko dur ci kaso bi ay at Ablaye Wade mer Ablaye wadd nekk ci fitna ba Ablaye Wade daa mujjee daw dem France toog fa di dund naqaram nga teg doomu jàmbur mettit googu baayam di misère ba daw dem France laqatu fa di fa jooy ay rongoñam ba léegi feragul xam nga ni yow boo yaakaaree ni yow dinga ko def doomu jàmbur yi tëj doomu jàmbur yi Xalifa Sàll yaayam di jooy suba ak ngoon ñu koy wone yaayam nekk màgget kooku sax làqu na ndeysaan lu mu dajul fii ci tëju Xalifa Sàll bi amul ñu jàpp doomam bi tëj ci kaso bi maire bu màgget ñaan na la ci ñaan bu ne jooy na faso jooy bu ne nga foog ne rongoñu kilifa yooyu ngay jàpp di leen jooyloo jàpp seen doom yi dóor ci kaso bi ci ay politique nga jooyloo Ablaye Wade jooyloo Ablaye Wade sa baay jooyloo yaayu Khalifa sàll fitnaal yaayu Ousmane Sonko toroxal ñoom Assane Diouf ñoom Guy Marius Sagna seen yaay di jooy seen papa yi di fitnalu yow nga foog ni da dund noonu nekk ci réew mi def loo loolu yépp leptoo faytoo dund loolu li lépp yow nga dund ba fas yéene dee te sa doom duñ tëdd kaso say jarba duñ tëdd kaso say goro duñ tëdd kaso say rakk duñ tëdd kaso loolu amul kenn mënu la ci sauver kenn kenn kenn la nga dund loo nit yi ba seen yaay di jooy wallahi di nga jooy wallahi di nga toog yow kese Macky Sall di jooy sa xol di tagg sa xol di metti nga xam yëg-yëg ba ñoom Ablaye Wade yëgoon ca ba nga jàppee seen doom nga xam yëg-yëg ba yaayu xalifa Sall yëgoon ba nga jàppee doomam nga xam ne yëg-yëg ba yaayu Ousmane Sonko yëgoon ba nga jàppee doomam di ko fitnaal nga xam ne yég yég ba nga xam ni yaayu mm, Assane Diouf wala yaayu Guy Marius Sagna wala yaayu Clédor ña ngi koy yëg ca ba nga jàppee seen doom <laughs> loolu moom di nga ko yëg alaakulli donc préparer ko rek nga waajal ko. atte bor fay la lépp fay too kon nak sama gaay ñi ngi leen di ziar di leen magal di leen ndamo di leen tiitaroo di leen bëgge wër di la xamni ma fi jaaroon comme ni ñu koy waxé rek man je serai très fier pour pour dugaat sama rew très très très fier je suis pas quelqu'un bo xamni euh fi ma nekk dekk na fi donc je souhaiterais même buñ ma indiwul tamit ñibbi parce que Sénégal la dekk Sénégal laa tiitaroo Sénégal laa nekk sama adresse Sénégal donc nu mu yàgg yàgg yàgg man damay dem Sénégal te ma yàlla amaat fi un an yoo xam dugguma Sénégal parce que dama dama sama war a dem j'ai des choses à faire Sénégal laa dëkk Sénégal laa nekk donc man soxluñ maa wëri soxluñ maa jëli duma kuy làqatu du ma daw làqu làqatu ma fii damay ñëw Sénégal allah kulli àll kon kooku moom kenn kenn kenn kenn kenn kenn fexe ba du ma duggaat Sénégal kenn. du kaso du hôpital du bàmmel kaso du ma tax a bañ a ñëw Sénégal hôpital du ma tax a bañ a ñëw Sénégal bàmmel du ma tax a bañ a ñëw Sénégal parce que fu ma nekk bu ma dee dañ may indi Sénégal bu ma feebaroon bu mënu ma fajo dañ may indi Sénégal pour ma dee fa donc ñett yii bu ma dee fu mu mën a dee ci àdduna dañ may indi Sénégal falaa bëggoon ñu suul ma donc hôpital hein du ma dawloo Sénégal kaso du ma dawloo Sénégal bàmmel du ma dawloo Sénégal man duma ma ku ñuy sax jëli ba koy jiiñ terrorisme ak yeneen boo leen ma bàyyee rek xam ne damay ñëw àllaa kulli àll ñëw moom dama koy def par force force doole mbaam loo yor dóor damay ñëw de Sénégal damay ñëw man soxla maa wëri parce que damay ñëw te gisuma ku ma mën a téye nag ba du ma ñëw damay ñëw incha allah wallahi la azim wallahi la azim damay ñëw incha allah kon dal leen man moom dal leen man moom du ma kuy daw damay ñëw damay ah, problème après lu ngeen rek ngeen def ko man je je suis euh, man dama pour pour dara il faut que war pourquoi pas oui les chemins fleurissent ne mènent jamais à la gloire les chemins fleurissent ne mènent jamais à la gloire man dama bëgg da ngeen ma war a jàpp da ngeen war a jàpp parce que man dama war a doon ngantam maami député bu bu bu bu l'histoire retiendra Mollah Morgun député député du peuple le vrai député du peuple man dama war a doon député man sa man dama war doon député député boo xam dañ ko jàpp député boo xam dañ ko tëj muy taxaw biir assemblée na di kaas di xëpp kaani di ko tàngal di teewal askanam day la ci bakkanam oui donc man da war a jàpp pourquoi pas leen ma war a jàpp boole ma jàppul tamit dinaa mën a tasam bopp ngeen jàpp ma parce que leen ma war a jàpp dafa war a bokk ci sama cursus dafa war a bokk ci sama CV ah Macky Sall yow da war a tëj man dama war a da nga ma war a tëj loolu si sama dund la war a bokk député du peuple bu ko doon député te man sama CV da nga war dafa war a am emprisonné politiquement dañ ma war a dama war a doon un détenu politique waaw loolu man moom maa ngi koy ñaan parce que tam waruma ñëw muy yomb nii rek <laughs> dañ a tëj ma war nañ ma ok boobu moom sama CV la bokk saa yu may wax Mollah Morgun damm bi dama koy wax du ma ko fàtte de sama CV la bokk ma dem kuñ ne Mollah Morgun wuy rappeur activiste pourtant xool en 2012 xeex naa fi ñu damm ma loolu moom sama CV la bokk léegi nag sama CV dafa war a am kaso tamit <laughs> Macky jàppale ma tëj ma ngir yàlla parce que sama CV dafa war am kaso damm fracture en 2008 fracture, en 2021 euh, wala 2022 prison, en 2023 euh, combat euh, tel, en 2024 après 2025 ma donne ma donne député wala 2024 ma donne deux grands députés pour xam assemblée nationale dans taxaw di raak ku wax man ne la man gënooma légitime dama xeex ba damm dama xeex ba Macky Sall dans ma dama xeex ba jógee kaaw ñu jëlee ma kaaw indi ma booy tëj ma ci kaso bi booy dama xeex man sama CV laa bëgg mu bokk donc man boobu tëjee allah alhamdulillah parce que dama war defar sama CV politiquement man politiquement damay defar sama CV parce que je suis appelé un très grand député un député inoubliable boo xam ne l'histoire retiendra Mollah en tant que député du peuple député national nationaliste waaw kooku moom vraiment Macky maa ngi ñaan nga yokk sama CV boo mu ne bul ko bàyyi nga nga je serais trop heureux euh, de faire partie des déportés mm, des déportés accusés à tort euh, c'est c'est day veux sama maki day sama bu ko faté nak jappalama hein jappalama ngir yalla nga jappuma ngir yalla jappalama nga non non non déporté loolu tam loolu xanaa loolu dafa rëy loolu ëllëg boo toogee ak ñeneen ñu dul Sénégalais di nga leen koy wax boo dóor imagine toi ma dóor kos karawaat un député toog ngeew yee gaa yëpp wër ma leen <laughs> fii amul kenn ku fi gën ku ma gën jaar-jaar Babylone laa nekk wooy di kaas booy xoolal président bi déporté ñu dugal ma avion spécial man déporté ma ma ñëw Sénégal man ñëpp na ah ma ne waaw en 2012 bu vous souvenez dama xeex ba damm en deux mille vingt deux deux mille vingt trois dañ ma déporté ci avion direct monote may taxaw def nii faay de paaw adduna bi yëpp yuuxu man moo Mollah Morgun tubaab bi ne nga ne man leen waaw dem leen laaj sama dëkk adduna laa wër ñëw président bi déporté ma booy mënoon booy avion spécial ma ñëw wàcc Sénégal ñu dugal ma rëbës ma génn génnaat liberté 6 def naa lii def naa laa booy ñoom ñoo koy toog jomm ne yë <laughs> booy dikki kii moom il le place député bii kii moom président kii kii sax il mérite bu laajee président Sénégal lañ ko ko war a jox eh oui mais bu ma ñëwee du am déporté man déporté bi dama koo bëgg bu leen ma yàqal Macky ngir yàlla déporté ma nag laa war a suuli déporté ma déporté ma parce que damay am au moins après damm déporté prison CV bi di gën a parce que damay préparé man aussi l'échiquier politique damay préparé de néew ma fi di kaas dama waaye dama war a doon député di leen xeexal di leen fëggal ay buntu ay Moustapha Niass yi buy toog buy fëgg boo ko fekkoon ay waay jël leen ñu baax man bu ma fekkoon foofu Moustapha Niass toog ay fenam yooyu kàcc falaa koy fekk mbéj laa la wax au non dëjë wala ma këdd ko séesam mu wàcc maa bés bu ma doonee député wallahi azim ba am benn xeetu Moustapha bu toog foofu di fëggi taabal du yem ci discours de falaa fekk rek mbéj man moom sisi wala ma këdd ko ba bu déggatee assemblée nationale dañ may dàq xeex bés bu déggatee bés bu ma gisee rek wallaahi may ñëw war a discours même bu sama heure jeexee du ko fëgg naa ko fitnaal fitnaal goo xam ne même bu sama heure jeexee mu war a fëgg ne sa heure jeex na daf may moytu parce que daan kii dof la moom kii moom kii di yem si discours de da lay fekk fii mbéj wala fëgg dóor ay boulon waaw kon nag mooy loolu Macky Sall kon nag yow lay tëjee maa ngi ñaan nga déporté ma am naa fracture combat fracture

CV bi boo ko joxee ab nit booy du sori dara sa waay yow amoo parcours politique sama parcours politique dama bugg mu yo kon nag boo ma déporté dinaa amaat beneen parcours vraiment nga tëjaat moom amaat beneen parcours nga génn ma ma siiw ma faw <laughs> ay waay man magi bu ma tëjoon ba génn ma kon Sandaga dinaa fa doxantu suba ngoon suba ngoon yàlla saa yu ngoon jotee ma tawal sama oto ñëw sàndaga génn sama bopp bi nga eh Mollah eh Mollah yee yee du fa jaaree tàkk ba faw parce que du ma ko bàyyi mu sedd opportunité la boo xam ne ci laay defaroo ma faw yooyu ay man buñ ma tëjoon noonu eh, dootuma dëkkati kër ga chaque jour ci mbedd yi laay ne foo ma fekk damay gën a ñàng soo kos karawat commencé taxawaalu ci tàngoor bi partout di ay nit nag waaw bu ñu ma gisul sax bu nit di jotaay sax gisuñu ma sax ma ñëw leen salaamaaleykum xàmmeewu man la Mollah Mollah ma Mollah mais kañ nga génn waaye man démb laa génn au moins gars yi mun ma coow waaw ma bayre bu saf-saf ko ma fu ma génn génn bopp fu ma dugg oto du ma sax dugg ci oto léegi damay dox wala nekk ci car rapide yi waaw di wut sympathie sénégalais yi jaral na ma wut fukki dërëm dugg ci car rapide yi suba ak ngoon di dugg ci car rapide rek di taxawal dox waaw bu ma ñëwee bu ñu waxul Mollah sax ma leen waaye boo créé politique foofu waaw créé commencé indi débat politique yow man la Mollah Morgun waaw Mollah maire yi xam ma paa yi xam ma ñëpp xam boo ma tëjoon moom fa lay jaaree siiw waaw waaw waaw waaw commencé defar nag sama côté sama CV politique nga xam ne moom <laughs> bu déggee moo laa xam ne car rapide dóor kalanduy fu ma dem nag balaa ñoo wàcc dinaa fa waxu ñu jàpp sama tur xam ne man la woon man lañ mën bind journal yi ñu bind yëpp nag danaa boobaa moom bu ma nekkee ci kaso bépp journal bu ma bind jëlal leen ma ko dencal ma ko waaw coupure de presse la dama koy soxla ci sama CV képp ku bind moo laa empêché bind leen moo laa interpellé bind leen moo laa attaque bind leen lépp bind leen buñ bindee dajale leen ma ko lépp dama koy soxla coupure de boo xam dina ma arrangé fu may wax ak nit mun naa yëkkati ki ne ko mi ngi nii maa ngi nii gis nga photo maa ngi nii man lañ jàppoon gis nga maa ngi nii man lañ déporté woon gis nga maa ngi nii man lañ dammoon gis maa ngi nii waaw yooyu bu leen ko maa ngi leen koy ñaan foo leen déggee daal ñu jàpp nañ wa interpellé leen lépp même bu dee internet bi la sax photocopier leen ko génne leen ko wala ngeen Euh, imprimer ko ngeen dencal ma ko dama koy soxla dama koy soxla maa leen koy ñaan yéen sénégalais yi coupure yooyu dama koy soxla waaw parce que mun naa nekk ci biir du ma ko mun a jot mais def leen tout dajalal ma ko après yooyu yëpp man naa ko dajale dugal ko sama saak boobaa saak lay doxee biir Dakar saak def ci coupure de presse yëpp waaw. fu ma dem débat Mollah Morgun politique génn ci sama bopp génn kii commencé tasaare xool leen maa ngi nii jàppoon nañ ma fii boobu Canada la ma fekk sax bu ñu may indi avion man nii spécial avion boo xam ne airtel maa ngi nii maa xeex fii yooyu dina ma arrangé waaw dina ma arrangé parce que nag Macky Sall tamit eh, ñun dañoo ñun mënuñu fi nekk ngeen ñuy jiite kese dañoo bugg a jël place yi ngeen jël defar ko nuñ ko war a defaree wan leen ni ñun xam nañ lu baax donc nag ah bëgg naa loolu. yàlla na ma ko yàlla defal amiin jaajëf sama gaay kon ñu def noonu timis jot na ma dem julli ji gaayeen jaajëf béggee wan loof nekk leen si jàmm